ben le système a un problème duñ ci dellu. Mhm. mais nag comme ni ñu ko waxee am na juge yi nga xam ne dara dara euh, tënku leen euh, li munti xew euh, dañuy xool seen àqulaay taala. Mhm. dama am en fait li nga xam ne daf ma ci dal te télé laay waxee. moi je connais personnellement Léegi Sabassi. Ah. même si. ça fait presque quinze ans qu'on s'est pas on a grandi ensemble. ah oui donc ah oui. Mhm. Euh, à Sibassor dans un petit bourg à juste à l'entrée de de de de on toujours voisins mes parents sont là-bas donc pour qui su ma ko waxee waxuma ko pour dara pour qui connaît cette famille et pour qui connaît Saba si mhm. di ko mu nga xam ne ba ñu doon xale sëriñam moo doonoon Mouhidine Samba Diallo mooy Sagne Bambara juste aussi près de Kaolack muy ki nga xam ne li mu li mu li mu li noonu waxuma la nit ki il faut que je revienne parce que dafay baax même nit ki su ngeen doonee xale nga témoigner loo xam ci mhm. moom même jeune loolu la mos a yëngu gëm diine di dox ci diine loolu moo ko ñoroon jàng na comme ni ñu ñun ñëpp nu ñu jàngee. Mhm. Euh, mu def loolu noonu mais ñu ngi day continuer di doon naay mu jàkk di continuer di jiite. donc man damay foog ne su ñu amee valeur rek dëgg feeñ waxuñ ne tout le temps Pastef a raison mais mhm. dans cette histoire euh, man je pense que le droit n'a pas si si si si fànn yu bari. Mhm. donc ñëpp xam nañ ne euh, soo ko contre Macky la woon à un moment donné jàpp nañ ko. day anéantir dañ ko war a àtte woon loolu mooy dëgg que ñu considérer que il existe ñëw ci juri du ñu ñëwaat ci juridisme boobu yëpp mais ce qui s'est passé mooy malgré tout ce que l'on puisse nekkee Sonko dafa ko war a àttewaat loolu problème amu ci parce que c'est une affaire toujours comme ni ñoom bi mais que ñuy considérer que dans dans dans l'histoire de amul sax pays au monde parce que droit des fois day am am nañ particularité selon les pays mm. mais am na li nga xam ne c'est universel